إذ خلدني ما تحشر عواقبه كأنني بهما هدي من النار في الخلتين وما حصلت لم تستريني نبي دنيا ولم تسميني خير وفي السلام أولى noppi te euh, farata moom mën na bañ a yàgg te am na ñoo xam ne ñu déjà sunu gan yi ñu ngi jóge ba Tiwaawan tey ca xadara bu tedd bële ñëw ngir ci ndigalu kilifa yi ci cadre commission culturelle nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci xadara bi ci seen loxo lañu ko teg Ah, bu burdu bi jotee bu gàmmu jotee sëriñ bi dajale leen ñoom ñépp Tiwaawan ñoom ñépp benn bëccëg ginnaaw bi mu tànnee thème bi mu bëgg ñu waxtaane ko ci gàmmu gi ren thème bi mu tànn ci direction wu sunu sëriñ sëriñ kër Sy Abdoul Aziz ndax ñoom bi ñuy defee proposition yi yóbbul ko xalif général des Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour yàlla yàlla doolee guddal fanam dañu leen daal lu jëm ci wàllu daara ji duma ci def duma ci dindi dem leen gisi seen bàyyi Serigne bay lu mu d'accord rek man validé naa loolu sëriñ bay Sy Abdoul Aziz moo tànn thème bi di innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq ginnaaw ba ñoom ñi bi ñu defee ay proposition thème yu bari pour wan la seen responsabilité xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala bi nga xam ne moo amee jéggal mu boole ñu jéggal ñun ñëpp di nuyu tamit commission bi nga xam ne ñoo yore li ñuy tuddee décentralisation nga xam ne ñoom ak ñun ñoo bokk liggéey bi fu ñu leen fekk danañ leen bàyyi xel ndax ñoom lañ ñu booleel di nuyu nag ci ñu booleel muy muqaddam ñu koy nuyu di ko ziyaar di ko jox wàccuwaayam di ko sant di ko gërëm ci tiraanga yi nga xam ne moom la nekkee woon ak ñun avant ñuy ñëw ci jàkka ji fa tabaarakallahu yal na yàlla yokk tiraanga yi yokk xéewal yi yokk man-man bi ndax lii ñuy def ñu nag yow ñoo ko bokk nii ñu ñu fi yabalee fii mën nañ la yabal ëllëg feneen ndax ñoo bokk liggéey du nuyu imam moom laa waroon a jiital ndax waqtul bu min abwaabiha booy dugg ci néeg jaaral ci bunt bi te jàkka ji nag imam bi mooy bunt bi ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaay du nuyu mbooleem muqaddam yi fi teew du nuyu mbooleem taaliba yi fi teew di nuyu mbooleem soppe yi nga xam ne ñoo fi teew ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant ñi ngi ànd nag ak kilifa gi nga xam ne moo tudd alxaaji Abdul Aziz Kan ñu yabal ñu ñu jógee ci xadara ba parce que yéene insha allahu taala li nga xam ne moom lañ tënk muy ay baat yu xalifa bi joxe ne nañ ko jottali Abdul Aziz bi moo koy jottali insha allah ñu ñëw nag ci mbégte Abdul Aziz nag doom la ci xadara jàngee ci waawam ci keppaaru Cheikh Seydi Abdul Aziz Al Amin di turandoo wi di turandoo moom tamit mboolem imaam ya nekk ci waawam Baye Moussa Niang moo nekk ca bopp moom moo yor lépp luy programme imaam yi ak daara yi nekk ci waawam muy Alxaaji Abdul Aziz Kan jàngee fa nag génn dem tamit fële ca maghrib yokk fa alliwoom dellusi ak coi nekk di jàngale di borom daara di jiite imam di jiite jàkka di jiite jàkka di jiite juma yore daara di jàngale ba pare xadara bi wóolu ko jox ko programme yu bëree bëree bëri ci moom lañ yabal fii ci mbaaw insha allahu taala pour mu war a jottali li nga xam ne moom la xalifa bi tënk teg ko ci loxool Sidi Ahmed Si mu teg ko ci loxo commission culturelle bi ñu war ko dérouler insha allahu taala diiru burdu yi ak gàmm gi yépp comme ni ko muqaddam waxee thème bi di makarimul akhlaq makarimul akhlaq nag yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq dañu ma ni ngir ma ñëw defar ci ko yi يالله سبحانه وتعالى ملني موم لم يوليو عليه الصلاه والسلام ليكو تي غنا نيه موي فخه ني فخه با جيكو ي رافه موتاخ مو تاغكو موم تي القران موم يالله سبحانه وتعالى متغ يونت يالله محمد نكو انك لعلى خلق عظيم نكو عبد الله موي صباي نكو عبد المطلب موي سمام تدوكو بن مامو تدوكو اسكانم دي قريش تدوكو فن فان لاكو تدو ci jikko rek la ko tagg kon nag jikko yooyu yàqute yi am ci àdduna ba daj kap loolu la sëñ bi bëgg ñu dellu siwaat ci jikko yi nga xam ne moom la lislaam ràng ab jullit ñu dellu si jikko waat ko muy takkaay yu ñu war a takk yooyu noonu insha allah ci la Abdul Aziz di waxtaan du ñu guddal ndax temps bi bëriwul te nit ñaa ngi xaar li li nga xam ne moom la war a sànni moom la nit ñi di xaar di xaar burdu bi di xaar yeneen i kàddu kon dañ ko doon ubbi rek présenté leen ko insha allahu taala ñu ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi aqulu qawli hada wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والامام المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبع اثاره وصار على نهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi tëdd yi gannaaw ba ñu musloo ci bakkan ak cheytaan ñu ngi tàmbali suñu kàddu ci turu borom bi subhanahu wa taala di ko sant moom yàlla mu baax mi ñu mayoon ñu fekke daaw fekke rek damay faral di wax ni lu waay fekke waay mu tëdd benn mu wute ko ci wérati wala mu wute ko ci jotati wala mu wute ko ci li nga xam ni ku ci jotagul sa wàll xaar ko moo tax maam ni fa li kulli min baxri mamaati nasibo géeju dee kenn du naanal kenn kenn ku nekk yaa dem tànqal sa bopp bëgg bañ neex naqari kenn rek moo ca dul naan mooy ku juddu waaye bakkan bu ñam juddu dana ñam am na ñoo xam ni daaw ci heure bii amoon nañu wér ba mënoon ñoo fekk ci jàkk ci mais fii ci néegu yàlla bi tey ñi nga tëdd ngir tawat yàlla saafara léegi am na ñoo xam ni nag ni daaw ci waxtu bii amoon nañu jot nekkoon ci seen xurriya ci seen liberté tay ñàkk nañ ko yal na yàlla delloowaat leen ci seen sabab ba ñu delluwaat ci liberté bi ñu amoon da nga ne daaw ci waxtu wii am na ñu doon dund ni ñun te tey boo demee ca bàmmee yee fekk leen ñu tënn ñu ngi ñaan ci barkeb yonent bi muy borom guddi gi ak guddi gu màgg gii mu tombee muy guddi yomul jumaa nga xam ne mooy sang guddi yi yal na yàlla donti yërmandee njëggal ci mboolem koo xam ne jiitu na te bokk ci ummatul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan itam salaatu wa salaam yàlla bu mu denc doon ci yonent yàlla muhammad moom ak ñooñu ak saxaabaam ak way xentu ay jeexitalam di ñaane te ñaan ngay yonent yàlla Moussa ñaane boroomam ba mu ne ko ida ila firawna innahu taga mun ko rabbi shrah li sadri moo tax sayyidina muhammad kenn moom waaw kenn du rasulullah waaw yonent yi dañuy aajowoo di ñaan yàlla di leen may moom nag yàlla da koy may te du ko ñaan alam nashrah laka sadrak moom rek moo am garantie bu doy ni wa rafaana laka dikrak boo ne laa ilaha illa allah bala maa nangu da nga cay teg si junna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yal nañu yal nañu xam leen waaw ndax bàyyi ibrahima saako radiallahu anhu daf daan wax ni am ko te xamuloo ko ñàkk ko te xam ko sax bu kon ñu ñaane ca buur yàlla na mu nangule woon ci yàlla Moussa ba ni ko xad uutiita su'laka yaa Moussa yal na yàlla nangule ñu noonu mm-hmm. allahumma amiin di yëkkati kaddu nuyoo bu ànd ak ziyaara ànd ak ndokkeel jógee ca xadara bu tedd ba bàyyi ko ca xalifa ba Cheikh Seydi Abi Bakar Mouhamadul Mansour ak boo lu mu jaboote wàcc ba ci commission bi nga xam ni moom la jël teg liggéeyu layaali burda yi mu teg ko ci seen loxo ñu di ko doxal fa tabarakallahu ànd ko suñu mbokki koskaas yi nga xam ni mooy commission bi nga xam ni ñooy nekk ci service su Cheikh Sidi Aboubacar si di liggéeyal bàyyam Cheikh Al Hadj Malick ñu jël suñu nuyoo yooyu ak suñu ziyaara di ko teg ci loxol sultaanul masjid te mooy imaam imaam mooy sultaanul masjid maa ngi koy nuyu Cheikh Mahamadou Moustapha Cissé ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jotalal nuyoo ak ziyaaru xadara ba di ko ndokkeel ci guddi gi di ko ndokkeel ci weer wi di ko ndokkeel ci bés bi nu dëkk man di ko ñaanal moom mbooleem mag ñu baax ñu mu séqal jotaay bi bu ñu sañoon yéen ñëpp la ñuy tudd waaye temps bi moo ñu ko mayee waaye ñu ngi leen di jox cër bi nga xam ne moo yell ci diggante njaboot ak ka ko njabootee boole nañu ak suñu muxaddam di cheikh Pape Samba Diop fa tabaarakallahu mu neex a àndal lool nag mané ne gan itam loolu fa tabarakallahu yal na ko yàlla taxaw ndax Cheikh Abdoul Aziz Sy radiallahu anhu al amin daf daan wax ni keur Cheikh Al Hadj Malick du andak ki la neex def li la neex andak ki la bolel def li len sant la qaida bobu nak talib bu ci nek war na ko jël tek ko ci kanamam diko nafar sa su nek andak ki la bolel def li len sant mu melni mom la nu serigne bi bolel ni nañu wàcc ci mom ñëw ànd ak suñu mbokk mbokk mii nga xam ni daf ma nobbatu rek waaye moom moom moo waroon a toog fii joxe dars bi muy cheikh Mouhamadul Moustapha Niang di njabootu cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mu yar ko jàngal ko def ci moom li mu def ci moom yëkkati ijaaza itlaaq ya teg ci loxoom jël daara teg ci loxoom mu koy doxal ci Tiwaawan ak mboolem. jumtukaay yi nga xam ni tabaarakallaahu borom xam-xam dana ko amee sa Sidi Mouhamadul Mansour jël ko loola yëpp teg ci loxoom fa tabaarakallaahu kon jàpp naa ni moom moo gënoon a yell ci toog fii wax lii ñuy bëgg a wax ndax moo nu koy gën a jekku moo nu koy gën a jekku waaye ci mbaaxam rek ak itam kër Cheikh El Hadj Malick buñ fi tegoon ki ñu jàpp ni moo gën a suufe àlluwa ni ko waxal ci barkeb Cheikh El Hadj Malick dana fi wax lu ñu mën a dégg loolu moom jërul tiitaru jërul ndamo ku sel xaaji Malick yabal ba njabootam yabal la ci lumu boo waxee danañu xam ni ñoo la yabal mënoon naa ko jël sax waaye ñu bàyyi Pape Samba mu def orientation bi su boobaa itam dana mel ni ko kilifa yi bëggee ñu nuyu nag ñaari jëm ci mbooloo mi ci daje ngeen baal ma ñaari jëmm yooyu ku ci bokkul nag ma jéggal ci nuyoo bi ñaari jëmm jëmm ju njëkk ji mooy képp ku fi teew képp ku dikk fii ci néegu yàlla bi maa ngi lay nuyu bi mooy képp ku fi dëkk képp ku fi dëkk wër néegu yàlla bii maa ngi lay nuyu dama ne ñaari jëmm yooyu laay nuyu ku fi dëkk ak ku fi dikk ku ci bokkul nag nag ma jéggal te xam ni nuyoo bi da da dalaa jéggi rek waaye bu ma sañoon nga dugg ci biir yaakaar naa ni xëy na bu ñu ko seetee du ñi ñi ciy dugg du ñu bari. ñëpp ñëw nañu ah. ñëpp ñëw sëriñ bi nee na ñëpp ñëw nañu kon nuyu naa ñëpp. waaye beral nuyoo nag ajaratu yi nuyu suñu yaay yu tedd yële nga xam ni Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour kirib la leen tudde woon ñoom jigéen ñi. da koy jël sànni ca ba waaye bu oto bi amee problème rek nga ni dellul ci maal bi ndax ñu mën a doxi soxla si. mu mel ni sëriñ bi nag dafa delloo mbattu la ca ndaala. te mooy maamam Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu sampe daaraam ca Tiwaawan ñaari cëslaay la ko amal mu doon ay branche ñaar la mooy alquran ak sunna ñaar yii mooy laytaayu Cheikh Al Hadj Malick ca xajaram bu mag bee lépp dellu na ci Cheikh Al Hadj nga yër ko ci alquran gisuloo ko nga dem ci xadis gisuloo ko ijma addu wu ca yëgal ni loola luñ ko duural la waaye du lu am sa xaj mari mbiram génnul alquran ak sunna moo tax daaw xalifa bi tànnoon alquran ren mu tànn sunna daaw alquran la jëloon ren sunna la jël génnul ñaar yii mooy njàngaleem maamam Cheikh Al Hadj mu mel ni nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu mu wax te sëriñ bi wax ko daanaka mën naa li mu ko indee buñ ko faram-fàcce woon rek mu doy thème bi mu mën a nekk orientation bu ñu mën a dundewaat ba déwén yonent boobu di sallallahu alayhi wa nga xam ni yàlla moo ko yónni ci nun nit ak jinne waaye def ko muy rahmatan lil alamin lu jiitu muy dégg wa innaka la ala xuluqin azim yàlla daf ko nattu ci nattukaay yi ñuy natte góor yàlla di ko natte ku yàlla nam ma dencal yiw ëllëg ba mu mate ku sëkk mu door a dégg wa innaka la ala xuluqin azim motax li tax mu teub rek ni innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq mo lay wan amna fuñ ko jaarale amna école buñ ko duggal defal ko takwin defal ko formation bo xamni la daan gar ñako jitu won mom bi mu yexse ci mom gaaru ko